Eh, man nag dama xaw a gërëm tuuti. yor yornu ka. parce mboolem ñu doon déglu bu nañ ustaas bi continuer ba fajar ndax maa ngi janoog nit ñi daanaka gisuma kenn ku gëmmentu kenn laa gisoon mooy xaw gëmmentu mi mujj na yeewu eh, fadilatu cheikh maam abdu Cissé al madoo bi borom jaamal wa xalifati saadati raisi qaryati jaamal saadati naibi raisi baladiyati jaamal saadati ibnina mumathili cheikhina wa axina alkabir alxaaji Moustapha Cissé wa jamii al ixwa alxaadirin usallimu kulla waxidin minkum bi ismihi wa laqabihi wa bi xudurihi fi hadihi al umsiyati alsaqafiya allati uqimat li zikri baad manaaqibi cheikh alxaaji abdoulaye siise mu assisi jaamal wal mulaqab bi borom jaamal ana shaxsiyan kuliftu bi dawrihi li tammiyati aw dawrihi fi tammiya wa rubama aati bi mulaxasin basitin li anna ana ka asfuurin bayna kiflayn aw waladayn laa adri hal sa amdax ustaas Ahmed Cissé alladi araftuhu mundu maa yasilu arbaina sana wa huwa yahtamu daiman bi siirati hada cheikh wa kitaabati manaqibihi docteur Jim Dramé الذي اهتم بأبحاثه لبرم جامل ومدينة جامل وفروعه وآثار برم جامل والدكتور جيم درامي الآن صار أستاذا باحثا في جامعة الشيخ أنت جوب بإفا هذا لتصحيح نائب بلدية jaamal lam yaud ustaadan fi maahid al islami innama saara ustaadan baaxisan fi jaamaatu Cheikh Anta Diop bi IFA niyaabatan an axina docteur Khadim Mbacke wa ana aydan qariban qariban jiddan sa uxaalu lil maash wa yaati shaabun aaxar yanuubu anni wa yakunu maahu خلال الأيام القادمة أيضا سأتنازل عن رئاسة قسم الدراسات الإسلامية وسوف يكون هو أيضا رئيسا لهذا القسم بإذن الله تعالى إن شاء الله dama doon wax ne ndax diggante ñaar ñii ma toog fu mu ne man mën naa waxate dara lu am solo Oustaz Ahmed Cissé mi nga xam ne man lu war a am mat ñeent fukki at fanaan naa néegam ay guddi yu dul jeex moom ak ustaas Abdoulaye Cissé Abdoulaye Touré Njaanjaay buñ ñëwaan ñooy bokk benn néeg te defe naa ne dañuy waxtaan ba man ma fori nelaw bu ëllëgee ñu tasee boobu ba léegi bàyyiwut yoon wi jim itam Eh, recherche yu ama ama am solo la def ci jaamal ak borom jaamal ak ñu fi génnee defe naa ne jury bi nga xam ne moo doon examiné thèse am mention bi ëpp ci bu université di joxe moom la ko jox mais amul ca dafa dénkaane ne lim bind ci jaamal nañ ko édité xam naa loolu dinaa bëgg Cheikh Moustapha Cissé yëg ko xëy na sax yëg na ko moom mu defal ko ci itte ndax man thèse bi ma defoon ci Pire fondation Tade Amar Fall ñoo ko génne thèse bi ma defoon ci Njaanjaay taaj bu njëkk ba direction du livre et de la ko génne te yëg naa ne benn bu nañu ko génne def nañ ci quatre millions boo boolee ñaar yi muy huit millions yombut jàngalekat kon loolu bëggoon naa waa jaamal xam ko moom du ko mën a xam liggéey boobu maa ko ci xiir dafa njëkkoon indi benn projet na ma ci kokki laa bëgg a liggéey ma ne indil ma li nga njëkk a liggéey si mu indil ma ko ma ne ko man du ma ko nangu jaamal daal la mën a nangul boo nangoo ñu ànd liggéey incha allahu booy yoon wi may wi ma sant am naa yaakaar ne dañ ci génn génnin bu rafet toujours nag dama koy wax sama yeneen ay étudiant ma ne ko oustaz docteur Jim Dramé daan naa soxla ci moom mu andil ma benn renseignement asbo al qaadim lu mu sori sori sori daf koy jaral mu dem loolu nag mooy recherche moom moo remplacé docteur Khadim Mbacké ci postam jël na service luy jege ci weer man nii fan yu néew ma dem retraite maa yore département ba mais bu boobaay moo koy yore ma def nag li alquran wax ne waxtul bu yoota min abwaabiha fii ñu nekk tey ci jaamal maam Abdou Cissé mooy borom jaamal ci moom la ñuy dalee bi ci wàllu doxalinu réew ki fi nekkal maire bu jaamal te moo doon wax léegi doomu suñu bàyyi alaaji Alioune Assis Cissé danoon ko bëri njëriñ nag man ci ñun lool ndax maa ngi ko xamee woon ci sama mag alaaji Omar bu jëppale teg ci itam ki nga xam ne mooy borom dëkku jaamal teg ci ki nga xam ne moo fi nekkal suñu mag suñu kilifa alxaaji Moustapha Cissé Hadji Moustapha Cissé bu ma juumul te juumuma la 1970 laa dem Kuwait depuis boobu ba léegi yàlla def na ñu ngi ànd àndin bu rafet fu ma mas di jàngee fekk na ma fa diiru may ne France ba mu def ay fan yu néew ma war a soutenir fekk na ma fa jox na ma itam laay biir yu bari loolu fu ma toog dinaa ko wax man nag dañ ma sant ne naa wax ci borom jaamal li mu joué ci développement bu Sénégal mënoon naa def ni oustaz def doon doyloo ñi mu yar ban développement la def ci ñoom ndax mboolem ku génne jaamu ni ko oustaz Ahmed Cissé waxee léegi ñooñu dëkk bu ñu mën ne dañ leen xàmmee ci seen yaram moo tax ma wax ne borom jaamal alxaji Abdoulaye Cissé saahama li tadbir al baladi wal aqalim wal muqataat wal jihawiyaat fi Sénégal ci ñi nga xam ne dañu participer pour développer ci mbooleem lu nga xam ne mooy Sénégal ak région yi fi ne ak département yi fi ne ak commune yi fi ne ndax néew na tey jii may wax ak yow gox booy dem ci biir Sénégal te fekkoo fa ku xam ne kii jaamal jaar na fi wala mu jaar ci ku jaaree jaamam danaa ko gën a leerale peut ci kanam tuuti développement boobu ma wax ne alaaji Abdoulaye Cissé boroom jaamal participer na ci taxawal ay kër lii sax bi ma koy wax de boobu déggeewuma ko ni ko oustaz waxee léegi ndax ustaas wax na leen léegi na fii ci jaamal kër goo xam ak kër goo xamul yow wala boobu ñun ñi nga xam ne gan lañu ci jaamal kër goo mën a dugg ci jaamal da fa fekk jeexitu doxalinu borom jaamal nee na loolu yéen ñëpp seena ngeen ko bon kër yooyu doom aadama yi di dëkk man dama njëkkoon xalaat ne taxaw na pour lu taxawal kër yooyu oustaz ñëw feddlee ko moom it ci beneen langage tarbiya beneen langage bu xam ne beneen bu yaram la ma wax ne alxaaji Abdoulaye Cissé taxaw na ci taxawal jàkk yu bare bare bare bu fekkoon docteur Jim Dramé indi nay teesam da ngeen fekk fu ne bu fa demee mu indi photo lu tegtale ne lii dafa bokk ci jeexital mag ñi nag ba ñu daj kenn ku ne boo demoon boo taxawalee dëkk il faut nga taxawal teen te booba teen yomb yaakaar naa ñu doon jàngee jaamal daan naa dégg ci ñoom ñuy wax jëfe ndox bu jaamal na ci jëfe ndox mais xoolal fu ne euh, tey fi ma wàcce woon euh, macha allah rabino bi boo boo laalee rek mu sotteeku boo laalee rek mu sotteeku te loolu defe naa ne dañ na jaamal ak li ko wër loolu ci barkeem mag ñi la jaamal gii bi ma ñëw tey ba faas muxtaar jaar yoonu àll bi ma gis sump yi bëri lool ca lañu daggagul ma xalaat ne bon ba borom jaamal di ñëw di samp fii nan la jaamal waroon na xàll bu xam ne peut kenn doonut fi ñemee yónni gune moom dong lu em ni fii ak yoon wu mag wa nga ne ko jaareel yoonu Fass Muxtaar mais xoolal fu mu ne ni jaamal tàlle xoolal ni mu yaatoo développement boobu kan moo ko def mooy ne borom jaamal la jaamal la fun na ne nii boo demee ci ñi ñuy gouverner benn quartier rek buñ ko viabiliser taxawal fa ay néeg danga nga dégg fu nekk ñu ngi ko wax ci rajo yi di ko wax ci télévision yi ndax nag ñoom ku mu ci mën a doon laay wax ku ci mën a doon man ba ma xamee Sénégal ba léegi man nag damay wax toujours ne li may wax heure bu ne damay bugg nit ñi dem di ko vérifier ji avant indépendance et après indépendance kan nga ci fekk mu ne la taxawal naa dëkk yi taxawal naa dëkk yi taxawal naa dëkk yi am na lu mu ci defoon bi mu jëlee mbokk séeréeram yi yóbbu leen toxaat leen fële ca gannaaw Koungheul xam nga dëkk ya man dem naa fa ah waaw nu mu dëkk nu mu tudd Merato foofu wax dëgg yàlla boo demee lotise nañ dëkk yee def ci lu lu bari moo dee dégg na def na ko Casamance Alioune ma ne doo dégg na def na ko Casamance doo dégg na def na ko Saalum fa may jeexalee ji nag da ngeen gis li tax ma bugg a njëkkee tudd loolu gannaawam defe naa Abdou Diouf moo ko wuutu gannaawam président Abdoulaye Wade moo ko jóg moo ko wuutu actuellement président Macky Sall moom it mu ngi jéem a taxawal lu ñuy tuddee la ville Noël mooy li ko dalee mooy projet jam ñaajo jëm Lac Rose mais xam nga boobu benn projet bu mag la mu dugg dans le grand projet du président de la république mais ma ne la jaamal gi ko taxawal borom jaamal moo ko taxawal te jaamal gii nanaa la ba mu koy taxawal boo yónnee gune na ko jaaral ci yoonu àll bi xama fii ak mbir ki la ndax yoon wow yàgg na mais da koy jaaree yoonu Fass Muxtaar boo ne gune gi dana uti ku ko gunge ci yoon léegi rek bi maa ñëw laa seetlu sump yi ni mu mel ma ne waaw fii bañ ko tojagul ni mu melam kan a ko toj muy borom jaamal ak ñi mu àndoon moom la ñuy wax istixlaalul araadi xayru la nga ñëw nag gor ko daaneel ko foofu yonent bi nee na képp ku fekk àll bu mel noonu nga gor ko taxawal ko yaa ko moom xam nga man buñ nag jaamal tiitar foncier la boo xamee xam-xamu yonent bi njàngaleem doo ci am loo ci war a teg xoolal fu mu ne nii mbay daanaka ba Sénégal bi Sénégal ba léegi moo amee dundu nit ñi dund yi moom doo wax naan soixante dix pour cent wala nangam cent pour cent mbay moo ko amee ndax mboolem lu ñuy lekk ki mbay lañ koy jëlee mbay nag mooy li ñu ci am ñun ak li ñu ci amul di ko jëggaane nga seet na ñoom li ñu doon dundee ñoom ñoo ko moom ñoo ko lëggee mas naa dem ci samay recherche guy suux yow xam nga ko yow mu dëkk Pire ma dem ñu ne ma alaaji Malick de def su ma si ñëw ñu gane la ko xam nga waa guy suux ak waa njaarim ak waa sookoon ñoo bokk benn maam bu leen jur sookoon ni ñoom des bi wax ay tukulóor waa kajoor ya ak waa bool ya ñoom waxatuñu ko donte kon dégg nañu ko mu ne ko mu mu defal ko laax bu xam ne soow ma daxaar la lañ ko doon war a suukaree xorom leen ci def mu ne ka si daxaar gii ci gannaaw bi fi lañ jëlee eh, eh, kii bi sefaaj liñ def ci laax bi ñaxat bi su ne siñ bay ci gannaaw kër gi fi lañu ko jële xorom si ñu ngi ko weccee ko ci suna bi nga xam ne moom lañ bàyyi maalaaji abdul eh, maalaaji maalik ne moom alhamdulillahi ndax masut lekk lu gën a lew ni su mu ne nag daanaka ku ñëwoon gana si la nga defal ko loolu mu ne xeem nga ko doxa daan nga ko seetlul mag ñi rek ci seen daaf ba wax ne borom jaamal mboolem fu mu mën a nekk ci Sénégal ba mu daj kapp dafa toogoon di jàngale la ko dalee Saint-Louis même ba mu demee gànnaar sax bi mu wàññeekoo diggante Kajoor ak Njàmbur Bawol fu ne mu teg fa ay école yu xam ne yi ba léegi jëm Daraame mi indi na ci ay étudiants ba léegi yooyu ñu nga fa nekk loolu benn développement raw na ko fu mu nekk nii actuellement nii bu ñu tabaxee école ñaari classe sax wala ñetti classe il ñu génne ko ci télévision pour wane ne ñu ngi taxaw ci développement éducatif développement éducatif kooku kenn ëpp ci woon borom jaamal lu mu taxawal ci Sénégal ba mu daj ni ma la ko tuddee léegi si ba mu ñëwee Saalum gii nag ba toog wóor na leen ne ci la taxawal dëkk bii ñu nekk tey dafi defee nii suñu waxtaan wii walla alhamdu wa ci dëkk yi mu war a morom manteet ci dundinu goox bi ñu nexee amul benn bu ko ci ëpp solo ma ne borom jaamal boobu dafa def participation te lii bi ma koy wax dégg guma sax li oustaz bind ci lu ñuy tuddee tanmiyal axlaaqiya li taraaqi albashariyati axlaaqan wa jasadiyan wa ruuxiyan wa almiyan wa waraan yii yëpp daf ci participer doom aadama ak jëmmi boppam jikkoom nu mu ko war a seggadee nu mu ko war a defaree ba ñu mën ko continuer kii dee doom aadama la bu amee jikko bu bu baax dégg nga léegi rek bi muy wax ci góor gu ne ak góor soxna si xoolal xoolal yoon wi mu laa jaarale rek xoolal yoon wi mu laa jaarale rek ak yow itam kooku peut-être conséquences yi mu laa joxe ëllëg conséquences yi mu laa joxe ëllëg kon jikko yi daf ko itteeloon jëmmi doomu aadama yi dégg nga de ni mu ko itteeloon ak seen roox yi ak seen wàllu xam-xam bi ni ñu koy war a sàmmoo am ci fegu almu tarbiya nag dañu waxoon ne albaani yahtamu bi iqamati almabna wa taxsinihi wa tajmilihi wa ama almudarrisu fa yahtamu bi binai alchaxsi albashari alladi huwa akramu maxluqaati llahi kulliha wala xad karamna bani aadama ki doon tabax lii xoolal tabax bi ni mu rafetee maanaam bu ngeen teeloo bi muy toogee maa ngi tiin waaw ndax lii eh, dafa am dal bu ko wala dara fareewut mais da nga gis rek xoolal koñ bu ne nga gis ni mu ko rafetee xam nga moom loolu mooy itteem ku taxaw ne macha allah ah waaye tabax bi moom jekk na di rafet man sama bu ko tabax ñu ne déw man de kooku bu may amati tabax danaa ko def moom ku ko tabax moom moom moom koo tabax lii kana ko tabax ah <laughs> ku ko tabax ka ko jàngal liggéey bi gannaaw bu ko yàlla defee doomu aadama moo ko ne liggéey bii kat boo koy def nii ngay def nii ngay def nii ngay def maanaam ci science de l'éducation dañu jàng ne nation bii moom lii moo doon itteem kay defar oto ba loolu mooy itteem nga déparé mbir kilaan jëm Kaolack gis yoon bi ni mu tàllee ah waaye ingénieur bii moom moom loolu mooy itteem mais nag yow mi toog di ittewoo doomu aadama di ko jàngal doomu aadama boobu yow mooy ca itte pour mu mel nii macha li ma mu ne la nag kooku bon mooy borom métier mi nga xam ne bii mooy métier moo gën ci métier moo tax ñu wax la ne ki toog di jàngale alxuraan métier moomu mu toog di jàngale mooy métier mi gën ci métier ndax alxuraan ci lépp luy jikko lépp luy defar doom aadama foofu la ne yàlla nag mu jégal doomu aadama xoola fas nim ñu ëppee doole oto saxaar mais lenn lu ne bu ko doom aadama bugg a jëfandikoo rek daay dem ñal gu ko war dem loolu dangay ngay gis léeg-léeg ma dem ci àll bi gis xale si tuuti léeg-léeg sax douze ans du ko am mais bu waree fas yi ni mu koy jaawalee <laughs> te fas yi il faut mun na ci liggéey ah xoolal ni ku ko yàlla nottalee xoolal oto ni mu ëppee doole ñu koy tabax sax li dawal léeg-léeg ñu mën oto ñuy dawalee ñaari baaraam di dem <laughs> ñaari baaraam yi rekk mooy raaj ñuy dem loolu lépp ci doom aadama bi nga xam ne yow moom nga war a ittewoo mu nekk doom aadama moom ngay defar pour mu man loolu yonent bi alayhi salaatullahi wa salaamu du ñu dugg ci gaal gi benn waay jël pontam moom di daaj te xam ngeen ne gaal bu feesee ndox rek day di lu muy daw daw ci ndox bu feesee ndox rek di mu ne téye leen ko bu ngeen ko téyewul dana lab labal leen loolu li ñu ci déggee li ñëpp bokk li ñëpp bokk ñëpp moom ku ko nar a yàq rek dañ war a téye sa loxo ak koo mën a doon ne leen lii kat ñun ñëpp ñoo ko moom duñ la bàyyi nga yàq ko nit ñi nag léeg-léeg njàngaleem diina duñu ko xam léeg-léeg wala bu ñu ko xamee duñu ko nangu bu ñu ko xamee léeg-léeg duñu ko nangu maanaam lenn lu ne boo seetloo ñoom dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy rafetal nga seet nag kon boo doon lim nit yooyu benn par benn benn par benn xëy sax dana dana bokk ci yi ñuy sant euh, docteur Jim Dramé ñee ko bëgg nañ nit ñooñu benn par benn nga dem ñoom it nga ñu gëstul ci li ñu doon def nga bind ko ay maqaam almiya nga génn ko nga doon seet moom rekk ñu génne ci moom boo leen doon jël benn par benn sànq bi maay waxtaan ak docteur Jim Dramé maa ngi ko daan Daaru Salaam de fii la jaaroon jàngee fi mais tey boo demee Daaru Salaam itam moom itam tey daanaka doo ko xaw xàmmeeg jaamal maanaa ci tabax ya ci làmp ya ci mbedd ya nga dem alaaji Serigne Uli nga dem Madinatu Salaam ci département de Nioro commune bu commune bu Wàkku Ngóona moom itam doo ko xaw a xàmme doo ko xaw a xàmme moom itam wala sous préfecture bu wàkk ngoona commune bi peut-être mën na nekk Ndramé bu fekkee Ndramé commune bi nga dem biir Jàmmi nga dem seet Daaru Ridwaan nga seet na mu mel ku ko sañ ci alaaji sëriñ wuli nga seet ñooñu seeni doom lañu def demal Arafat nga seet ñoom moo Habib Touré yi boo gisee nag manoon la Senghor dafa dem jël mbokki séeréem bi yóbbu leen gannaaw ku ngeen mais fu mu nekk nekk nii rek ñaata ñoo bawoo jaamal dugg ci biir àllu Casamance bi tabaxal fa defar fa ay dëkk yu xam ne dëkk yooyu yëpp boo demee ay daara nga fay fekk man naa ci tudd suñu mag suñu kilifa suñu sëriñ sëñ Modou Mokhtar Cissé sëñ Asmi làkk bu yàggoon man naa ko ci tudd ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sëñ Modou Muxtaar sax daaw maa ngi waxtaan ak moom mu ne ma même gàmm bi ñu fa def it benn daara yooyu nag boo ko doon topp di ko topp di ko topp nga ñëwoon nag dajale ko fii mën naa laa wax ne dina ëmbaale mbir ki lépp maanaam nga boole leen muy benn dëkk nga nga boole ko muy benn dëkk dana ëmb mbir kilaan dana dem sax fii ba fekk mu nekk lu xam ne lii ci asaaru développement bu alxaaji Abdoulaye Cissé borom jaamal la loolu nag boo koy seet da ngay imaginer maanaam boo gisee ñuy wax recherche bu bu buñ ne alxaaji Abdoulaye Cissé borom jaamal rek nga am ci jaamal ne aski mais seetal nag li boo waat ci jaamal li boo waat ci jaamal def tafarro même maami maa ñaareelu maami suñu sëriñ bi alxaaji Abdoulaye Cissé Eh, maam Abdou Cissé bu pire ku ko fa bàyyi ku ko fa bàyyi mais boo demee koñ ba mu dëkkee moom it pire fenn ëppul ko fa développement fa mu dëkkee ci pire fenn ëppul ko ci développement ak yeneen i place ak yeneen i place ak yeneen i place yu xam ne yi man nga ko wax ci développement nag buñ koy wax doo am ci développement urbain mais da dem ci développement humain nga seet ci humanité lan la ci borom jaamal def ci ay jikko lan la ci taxawal ci ay jikko lii ñuy wax développement ci ay grand projet de développement seetal moom projet bi def naa ne bu ma juumul borom jaamal mu ngi wàcc liggéey mille neuf cent cinq bu ma juumul te yaakaar naa juumuma mille neuf cent cinq ba léegi xoolal nag moom li mu doon liggéey ba léegi plan bi moo fi ne di plan bi moo di continuer oustaz wax na ko léegi ne loolu mu bawoon mag ñi ba léegi mag magaan ñi ci loolu la ñu ne xoolal léegi rek man dama jël léegi ci bi muy wax di tudd way juróom maanaam nit ki nga xam ne jaar na sa bunt kër ba mu duggat sa kër am na sa ndigal ki dof nag ba bàyyi la ko alquran sant ne ko booy dugg ci kër jaaral ci booy dugg ci néeg jaaral ci bunt bi mu romb la ne narax sa kër da nga naan kii dof la bàyyil dof bi mu dal ñun ñi yàgg ci réewu arab bi man ba léegi ba fu mu nekk a nekk nii ñemewuma dem ci kër fëgg rek ne cërax ndax loolu ñemewuma ko ci benn këru naat il faut nga même buy sa xaru néegu boppam bala ngay dugg da nga fëgg mu dugg toxal la muy toxal defaraat la muy toxal defar ne la tafaddal nga dara mën a dugg mais ñun nag ci yeneen yar yi boo ñëwee rek salaamaaleykum maaleykum salaam ana diw nekkul man léeg-léeg ñu def ma ko Dakar gêné ma waa ji daa ñëw ba ci soow bunt fekk maa ngi liggéey wàcc sonn docteur wala ñeneen ñi buy suñu mbokk ñoom daa tey alaaji Cerno <laughs> yow docteur am nooy def bu ko defee nag man loolu oustaz Ahmed Cissé maanaa kii dafa wax ne déwén bu ñu koy def lii nañ ko teel a def mais man dama doon proposé ne maa ngi koy waxaale maire bi moom itam dañuy jël journée spéciale journée culturelle spéciale sur la vie et l'œuvre de Alhaji Abdoulaye Cissé ñu ko ñu ko mën a financé ñu ngi fi ana Babacar dégg nga bu ko defee lool maanaa bu ñu ci génnee act yi ñuy def dañ koy def act de publication jimmi xam na ko maanaam man bu boobaa sax bu ma resté nekk directeur général de l' institut islamique man naa ci dugal participation bu baax ci li nga xam ne moom lañ ma dénk man ci liggéey buñ ko defee Dakar it naa joxe liggéey yi nga xam ne institut moo ko moom lépp bu fekkee ne nekk naa fa directeur ba jamaano boobu foofa dañ ma ko dénk bu ma bu neexee Macky Sall sax daal naa ak mbir ki mu ne nommé naa beneen directeur awma droit aucune revendication mais nag li nga xam ne nag maa ko jàng moom ko heure bu ne bu ma dajaan ak nit yow yaa ngi université ba léegi ma ne ko université nag amul recteur benn bu ma fa mën a génne lu dul ma agsi ci retraite jeexal fa loolu nag agsi naa mais nag li ma jàng moom ba ma ne baasiin mi mar wala ma ne alif baa jiim daal ba léegi loolu moom maa ko moom ñu ko soxla ñu ne tam am wér gi am kàttan gi am jot gi dama koy defal ñoom moo tax dama doon wax ne yéen comme jeunes yi yéenay organisé lu ñu mel da ngeen di ñëw ñu bokkandoor participer même bu boobaa jëm Dramé mii am nañ sañ-sañu sant ko euh, ndax li mu ak si ñoo ko ci jiital tey feemu ne ci IFA parce création li ñu mel bu ko defee ñu teel a jóg def une étude bu xam ne dañuy proposer journée scientifique du culturel journée scientifique sur la vie et l'œuvre de Alxaaji Abdoulaye Cissé borom jaam février bii ñu génnee def naa ko ci xalifa Ababacar si incha allah ak kii danañu génn bu ko defee ah, ah, alaaji Alioune Cissé ray si loolu man maa ngi leen doon proposé ngeen baal ñu ak xëy na bu ñuy ñëw sax ñun dañ defoon benn benn complot bu ndaw ne guddi nag bu ñu demee nañ ku ne na wax tuuti rek ñu jeexal mais comme oustaz mooy cheikhuna wala ne fataxal majaala ma mu wax lu bëree bëree bëri xëy na sax moo tax man ma ak ci minute yi maa ngi balu àq li ma ci wax lépp bu lu ci am njuumte maa ngi koy jéggulu famille borom jaama ndax wax ci sa famille keneen di ko wax te yaroowut fa jàngewul fa man na am nag ay njuumte mais nag buy bëgg-bëgg xol nag defe naa ne bu ñu xooloon xool yi ñu fi jaar ñëppit nag kenn ëppul ma ci yéene ci def ci jaamam ci def ci jaamam bon nag ci langage boobu la doon waxee lu ci nekk njuumte ci terme kami dong la ba li ci nekk nidu lu jub bi tawfiqin min allahi wa bi musaadatikum antum wa shukra kon nag eh, mbokki auditeur yu Kaolack eh, FM jamahan mubarakan marhuma واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مغرما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنا رشدا بسم الله على ملة رسول الله سعادة الخليفة الأجمع عبد السيسي أو نائبه saadatal kalifa alaji Moustapha Cissé aw naibaho ashaabal fadila mina suyooxi wal walidin wal walidaat wal muridin wal muridaat assalaamu aleykum wa rahmatullah innu innahu lamin xibtati wa surur an bikum fi haasal yamin mubarak yamal jumaa ba fi haasee xadra alqayima adrat cheikh alhaji abdoulaye Cissé wa fi haasee jamaatu alxabira min asalihin al abrar لنتناول كلمات قصيرة تتضمن نقاط من تربية الشيخ الجامع العسيسي وأنا إن بصقت من ينابيع المركز الفهول والمعاني وكسيت بمراعاة المسالي المرسلة ومقتضيات الحال فما فعل الشيخ من قول ولا فعل من فعل ولا ترك أملا أو أحملها إلا وهو مقتد بذلك هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونريد بهذه الكلمات وجس مقارنة مقارنة تربيته رضي الله عنه bihaadihi sallallahu taala alayhi wa sallama fi takwinil ustati saaliha bokk yi gannaaw bu ma jiitalee nuyu xalifa bi alaji ma abdu ak ñi ko fi teewal nuyu alaji mustafa xalifa alaji mustafa site jaarale nuyu bi ci doomam bi fi teewal nuyu kilifa yi fi teew yépp ñii di ay sëriñ ñii di ay wayjur ñii di ay taalibe ñii di ay soppe ñii ay xarit maa ngi wax ne bokk na ci suñuy kontaan ñu bokk daje fii ci bisu ajima bu barke bii ci xadara bu dara joxu bii muy xadara ab Seex Alaaji Abdoulaye Cissé ak ci mboolo mu sell ñu baax ñi ñu xiiwe ñi ñu barke ñi ñoom lañ dajeet fii ba nga jël ay kàddu yoo xam ne ay tomb lañ ciy nettali yoo xam ne tomb yar la ñu jële ko ci sëriñ bu mag bi lépp luñ jëlee ci moom mu ngi ballee ca fa xam-xam yi daan ballee te mooy markasul foomi wal maani sayyidina muhammad ibn abdillah yaram yaram alayam lay cité dafay def ñaari ngëneel yarab diina lay doon ba nga defee ne diina képp la waaye yarab àddina lay doon ba nga defe ne àddina képp la na nga melee ci la lay yaree na jamono mel ci la lay yaree comme masa du wax la xam nga lam la wax loom masa wax dëppoo naag alquran wala mu dëppoo ak sunna loom masa def dëppoo naag wala mu dëppoo ak sunna loom masa sàgg loom masa bàyyi bàyyi nga am na ci alquran wala mu am ci sunna moom daal yaram mu ngay sukkandiku ci rëdd bi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam rëddaloon xeetam wi xam ne ñu xiw ñi ci daan jaar moom it rëdd woowa ci la jaar ci la jaarale ci la jaarale njabootam gi yàlla meyan ko fasaa gu rëy boo xam ne génnee ku mu wax xam nga la nga wax xam xam nga la mu wax waaye Abdoulaye Cissé mos ta waxtaan ak nit nit ka ne li mu wax xawma ko waaye bi ma jox yem na ni penku ak mooy yarab borom jaamal mu ngi yaatoo ni penku ak xarf ni mu yaatoo moo tax dama cee benn gox ma doyloo booba mooy li saalum saalum yi wax nan la ñuy sampee kër foofu lay déparé duma ko mën a génn nag ci kem rëdd yi nga xam ne yi ni moom la ci sëñ bi rëdd ak leeroo gim leeroo ak hadiis yonente bi sallallahu taala alayhi wa bokkoon na ci yi nga xam ne sa alaji Abdoulaye Cissé daan na ci jablante njaboot gi mooy nit koo xam ne kii nii dugg ci jabar jot na ci moom su ca duggulee dana ko ci kumpa dana ko xamal ne ko nag yegg bu nit daan nekk ci daara ji wala mu di dëkkandoor te ay nawleem daan àgg dugg ci jabar bu ci duggulee dina ko xamal ne dugg ci jabar nag jot na du ko ca forcé waaye dana ko ko xamal dana ko ko ubbil bunt dana dem ba dimbali ko ci xalal dana dem ba xewal ko ci barab dana dem ba tànnal ko gox dañu may leeral ndax ñam ko ñam ci seqatoon ak ñam jaarale woon ci yoon woowa léegi seeni njaboot ay kilifa lañ ay mag lañu waaye mbiram la woon loolu nag kam doon toppandoor mu yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama moo ko ci njakkoon yonente bi sallallahu taala alayhi wa amoon na benn waay boo xam ne dafa takkoo nag moom bàyyi dëkkuwaayam ñëw dafa naan ci pegg yonente bi bu guddee mu jegeñal ko ndox ma muy war a soxla bu dee dem mu ànd ak moom bu toogee mu toog ci peggam benn bis yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama yaa fulaan allah sa waj diw xanaa doo takk jabar mu ne ko man de mënuma takk jabar yont bi ànd moom ànd moom ànd ay fan yont bi dellu ko waxat ne ko yaa fulaan allah tasawaju xanaa doo takk jabar mu ne ko man de mënuma takk jabar yoonu ñaareel ba mu paasee mu ne yont bi li laaj nii moo ma gën a xam sama bopp su ma waxatee waaw da ko yonent bi moom a gën a xam sama bopp li may kumpa nii sun ma ko waxatee dinaa ko tontu sun ma wa sun ma kumpaatee dinaa ko tontu beneen yoon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dellu ko waxaat mu ne ko bëgg naa jabar waaye awma lu ma takkee jabar yonent bi wax saaba yi ne leen dajal leen leen ko loo xam ne mën na ci amee can bañ dajalee lu mat can teg ko ci loxoom yonent bi ne ko demal kër diw sàngam boo demee nga wax leen ne leen yonent bi moo ma yebal ci yéen nee na cam si fi nekk te toll ci dugg ci néeg na ngeen ma ko takkal noonu mbokk yee dajee d'accord may ko ndaw so mu dee sunna boo xam ne kilifa gu da ko war di bàyyi xel diw mi bëgg naa du ko jabar waaye mënu ko nangam moo tax mënu ko jàngoro jooju nga wut ko fajal ba mu mën a taxawal kër mën a samp njaboot mën a sàkku njaboot ba mu demee bañ may ko ba mu ñëwee mu ne ko na nga céet leen nag yonente bi yonente bi ne ko na nga céet leen nag mu ne ko mënumaay céet leen mu ne ko delluwaata ci saxaaba yi nañ defoon ba dajaleel la can dañ ko defaat ba leen la loo mën a céetalee baamtu gém baamtu noonu ne ko na nga céetale nag ci nga xam ne moom des lu gannaaw céetale moom rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam lii nii gis nañ soxna gis ah, nañ sëriñ bu mag bi Alaaji Abdoulaye Cissé defal ko ay taalube ne toppandoor yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci hadis bi xamoon nañ benn mbokk taalibe moo xam ne bi dafa yónni woon benn taalibe bu mag ci taalibe sëriñ bi ne ko demal nga wax sëriñ bi ne ko dama yore ay gune jigéen ci kër ga saa yoo xamee ne bi nii am na ci njaboot gi kum ci gis koo xam ne wóolu na ko su ko xeebalee ci man bu ñëwee dañ jëflante mu benn mbokk taalibe ne ko ni ma la gisee moom sëriñ bi jaamal mu benn mbokk taalibe ne ko ni ma gisee dey war ngaay xut soxlaay jot na ci yow te diw sàngam mbokk la yónnee na ci man wax na ma ne ay gune ñu ngi ca loxoom yoo xam ne su ma fa yónnee nit danañ jëflante mu ne ko mu ngi ci suma bëgg-bëgg de mu ne ko kon nag yónnee fa ku la ko seetali loolu itam ngeen def ci géndeeku bu baax sëriñ bi sëggut ci loola rek may ko ko daf ko ne yónnee fa yónnee fa ku la seetali forcé de dafa gaaral tee di de dafa teey doxalul sañ-sañ de dafa joxe xalaat yónneel ku seeti gune ya yónneel diw sàngam itam la ko wax mu yónnee ku dem seeti gune yee kooku ba mu ñëwee dikk ne ko gis naa leen di ñaar lañ ku mag la ak ku ndaw ku mag ka nag mu ëpp daraja sëriñ bi ne ko laajal ka ëpp daraja borom jaamal ne ko laajal ka ëpp daraja gannaaw ñoo yem mu ne ko ñàkk daraja du tax ñu bàyyi ku baax waaye ëpp daraja dana tax ñu tax nag ku baax kaddu sëñ bi nga seetlu ko bu baax ñàkk daraja du tax ñu romb ku baax waaye am dara daraja nag dana tax ñu jiital ku baax ñu dem bañ demee ñu jëflante jëflante ba yàlla jot ci ak njaboot goo xam ne génne ko ràññee la ci biir réew mi nit ñi xam nañu leen waaye ama soxla ci tudd leen lii dëppoo na ak addis yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama bi nee kenn ci yéen bu gisee ndaw soo xam ne am na ca soxla na dem seeti ko seet ko ba gis ko dana soxal mbëggeel ci xol umpule mën naa jur mbañeel ëllëg yonent bi sallallahu taala alayhi wa bu gisaan jigéen joo xam ne jii nii bëgg na koy toppatoo ngir boppam wala ngir nit Ummu Suleymin moom la ci daan yónni mu dem seeti ko bu ñëwee lu mu ko waxal mu jàpp ci loola gis ngeen ne sëriñ bi bi mu tànnalee taalibe bi dugguwaay itam nee na ko yónnee ca ba mu yónnee ba ndaw li ñëwee itam tontu na ko lim ko tontu nee na ko boo demee tànnal ko kam wax ne mu ëpp daraja ñàkk daraja du tax ñu bàyyi ku ku baax waaye daraja nag dana tax itam ñu tànn ku baax am na benn waaye boo xam ne bi dafa ñëwoon ci borom jaamal ko ne ko damaa yore ay gune jigéen bëgg ci jëkkër ju baax moom nag dafa wóote kele kele moom dafa bëcc sëñ bi mu tànnal boppam moom nag moo tànn jëkkër ji mu bëgg moo tax mu ne moom dafa bëgg gune jigéenam yam yore noona sëriñ bi tànnal ko jëkkër joo xam ne ji ni dafay xam dara xam dara sëriñ bi ne ko kooka nijaayam moo la cay njëkk jëkkër joo xam ne day xam dara xam dara la sëriñ bi utal ko ko ngir doomi jigéen ak yi mu amee sëriñ bi ne ko kooka nijaayam moo la ca njëkk sa doom ji jàngi xul day sëyi utal ko jëkkër joo xam ne jii nii am na pexe nawet dana gàntu ba dund du waaye pexe moom li muy gàntu bariwut te jëkkër ji te doom ji sëyi jàngi wut day sëyi utal ko jëkkër joo xam ne am na pexe nawet dana gànt ba dundu të waaye borom pexe li pexeem da gàntu ba lu lekk të bariwut gis nga fii ne sëñ bi mu ngi tànn waaye mu ngi tànn mu ngi tànn koo xam ne ci ni bëri na hitte am nay pexe pexe yooyu mu ngi ko teg ci pexe yoo xam ne yéen dafay dagan soo ko bëgg a tënk ci suñ làmmiñu jamono jii danga nga naan am na métier métier moo xam ne mii nii moom lay teg ci mbay ndax li mu wax ci mbay ku ne gis na ko nawet dana gàntu ba métier të ba dund të waaye pexe gàntu ba borom pexe lu mu xañee tëkku nu mu reere tëkku kon pexe moom moo bënnagul rek waaye pexe su bënnee borom lu ko tere war naa am pexe mu jaaree ba mu sotti lii de naa ak addis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam isa ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa sa fi juuhu illaa tafaloo tëkkun finnatun fil ardi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bu waay ñëwee di leen laaj seen doom lu ñutu ngeen diinaam gërëm ngeen ko lu ñutu ngeen jikkoom gërëm ngeen ko na ngeen ko may kam leen ay laaj su ngeen bàyyee maye ñi xeyoo yàq dana juddu te gërëm diinaam gërëm jikkoom xëyoo na ku xëyoo bu leen laajee jox leen ko bokkoon na ci yéen bi nga xam ne bi ne borom jaamal yore na ko njabootam man nga wareelu am juróom-ñaari jotaay yu maye sëy benn bu ne ak na ma maye sëy ak beneen ba duñ bokk waaye jaamal gi soo fi doon wëreelu bët bu set nga may fekkee mayeb see ci dëkk bi ak li kër yi bari bari bari bari kër goo fi dugg ñu mayee fa sëy soo génnee dugaat ci geneen kër buñ mayee sëy la waxoon ci kër gële lañ fay wax ba dëkk bi daj nag xelante woon ba bu set ñu mayee fa sëy nga fekkee ko benn wuutee du ko am moo ko tëraloon ba bis yàlla tey bi dëkk bi ñu ko roy borom jaamal yàlla may na ko ne lépp lum santaani woon ba bis yàlla tey bi nit ñaa ngi koy jéem lépp lum tere woon ba bis yàlla tey bi nit ñaa ngi koy daw nit tere nag gisatuñ ko ñu bàyyi lam tere ñu def lam tere nit santaane nag gisatuñ ko ñu bàyyi lam santaane ba des aljam lay sisi ba bis yàlla tey bii kàddum yaa ngee dox ci biir dëkk bi ci biir njaboot gi ci biir taalibe yi nit ñi di ko jëfandikoo foo dugg ci jaamal bu ñuy maye nam daan maye la ñuy maye ba bis yàlla tey bii buñ jàngee fatiha hubbeeku aay yañ ci daan teg yaa ayyuhan naasu taqoo yaa ayyuhal lazina aamanu taqoo laaha haqqa tuqaatihi wala tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa ayyuhan naas ttaquu rabbakum allazii xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'an wattaqu llaaha allazii tasaa'aluuna bihi wal arham inna llaaha kaana aleykum raqiiban yaa ayyuhaa allaziina aamanuu ttaqu llaaha wa quuluu qawlan sadiidan yuslih lakum a'maalakum wa yaxfir lakum zunuubakum wa man yuti' llaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan aziiman doo gis aaya yu gën a askananteeg jotaayu sëy aaya yii aaya wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yéen nit ñi ragal leen seen borom bi nga xam ne bii nii na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg niñ ko xëyoo xale saxaleen di dund ci islaam di dund ci diina de lu meen bett bett na leen fekk fa antum muslimoon ngeen di ay jullit seetal bi ni muy wanee benn doomu aadama ak sum tollu léegi yaa ayyuhan naas taxoo rabbakum ragal leen seen borom allazi xalaqakum min nafsin waahidatin moo leen bind ci benn bakkan muy aadama wa xalaqa minha zawjaha bakkan ba ci la bindee hawa diggante hawa ak aadama wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan mu bind ci diggante boobu góor ñu bari bind ci jigéen ñu bari mu ne wattaqullaaha allazii tasaa'aluuna bihi yàlla mi nga xam ne ci turam ci ngeen ay laajante ci ngeen ay doxee seen soxla yi na ngeen ko ragal wala xaama bokk gi na ko sangu na ne yàlla mu leen di fuuglu yaa ayyuhaa llaziina aamanuu ittaqullaaha wa quuluu qawlan sadiidaa ragal leen borom bi tabaaraka wa taala wax leen wax ju jub su ngeen ko defee yuslih lakum ahmaalakum seeni jëf dana héwén dana jégal seen bàkkaar wa man yuti'illaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan aziimaa topp leen yàlla ku topp yàlla da texe texe gu ma sëkk diw sàngam doomi diw sàngam ak diw sàngam noonu lañ koy waxee dañ indi yaay ji dañ indi baay ji moom la ñuy may diw sàngam doomi diw sàngam ak diw sàngam dañ tudd yaay ji dañ indi tudd baay ji waree loolu nga waree loolu léeg nga gis foo xam ne tuuba rek la ñuy doyloo est-ce que sax dana leer bu baax du xóot li alaji jàngale de lim jàngale da ngay wax yaay da wax tur wax tur yaay ji wax tur baay ji moom la may diw sàngam ci farataay yàlla ak sunu si muhammad ak ndigale ay kilifaam ci kenn gañ juboo ci kenn gañ juboo lii mooy ponk yi nga xam ne yi nii bu ko say wàccee say du fa nekk yooyu yëpp sëñ bi dajale na ko def ko muy benn tënk ci farataay yàlla ak sunna si muhammad ak ci ndigalal ay kilifaam ak can giñ juboo baatu can giñ juboo nag ñu bare bare bare moom la tooñee waa jaamal ñu ne seen maye dañ la cay woo seete ba pare nga dem te ni nga seete xamuloo ko can gi duñ ko wax de ci mbooloo mi liñ bari bari bari bari ñëppay ñibbi kenn ci xamut kenn gi nan lay am nag li leen ci jaaxal dañoo jàngoo téere bi ñuy wax Ihya Ulumuddin Ihya Ulumuddin dafa wax ne min aadaabi xaqdi siwaaji ihdaaru jamin min ahli silaahi siyaadatan ala saahidina lasaynuhuma ruknaani li siha yaawoon la mu deen dafa wax ne bokk na ci liy teggi maye ak melokaanu maye boo amee sa ñaari seede ci biir kër ga bañ seede can nga ba bokk xam xam ñi ñuy maye ak kan la ñuy maye nga dem nag ci palaasu mbooloo nga woo mboolu mu bare bare bare bare bare ñu ñëw fekke ko mboolo mu bari moomu ñoo fekkee si ko mboolo moomu ñoom ñoo xamul seen ginnaaw waaye mboolo ma doon waxtaanee ci kër ga ñépp a xam seen seen ginnaaw lay te seede rek lañ ci bëggoon am nañ ci biir kër ga ñaar ñu ko seede bu ñu amee ci biir kër ñaar ñu ko seede kay doy na am nañu sax lu ëpp ñaar ñi mbooloo mi li ñuy seede lan la moo ne waxambaane wii ngeen di gis léegi lu ko tàmbee ci bisab tey bii ilal abat su ko neexee mu dugg ci kër gële bu kenn seen mu dafa dugg nga di am sikk sàkk ci moom loolu la mbooloo mi seede ña doon seede ne cen gi nangam la yem ci biir kër ga lañ ko seedee dafa amoon nag sabab boroom jaamal da doon maye ñaar nit ñoo xam ne ñii ni kem lañ seen jëkkër yi yemuñ man-man te ñaari jigéen yi ay kem lañ jëkkër yi seen man-man yemut kenn ku ne ñu jox ko can gu tolloo ak man-manam benn jotaay bi nag ci la ñuy ci la ñuy maye ñaari kem yi bésab keroog la sëñ bi commencé ne ak can ngañ juboo ñaari kem yi ñi bi borom can gu rëy gi yëgul ne kële can gu ndaw la amee borom can gu ndaw gi yëgul ne kële can gu rëy la boo booba léegi nag comme ni ma leen wax rek lu mu daan def ba léegi nit ñaa ngi koy jéem booba léegi dëkk bi bàyyi wuñ ko ñi leen ay toppandoo it bàyyiwuñu ko waaye li ciy leeral rek moo de ne mboolu mu bari mi ñoom ñoo xamul can gi waaye ña ko seede ci kër gi xam nañ ko hmm. te ñaari seede rek doyoon nañ ci xam ko loolu lenn la ci yar bi nga xam ne bii nii moom la fi bàyyi mooy suturaal suturaal ku néewle kii ba néewleem du feeñ suturaal ku bëri léegi bëri ba bëri gi du ko fuugaru ci kaw nit ñi maa fi gën a rey cen du ko wax de ndax kenn du wax cen gi maa fi gën a tuuti cen du ko wax ndax kenn du wax cen gi te mayee jaamal boo génnee gis lu ko mooy yow yaa fi nekkal ndaw si yaa fi nekkal jëkkër ji ki dem maye bu mayee bu paree da nga teg baat bi nangul naa ñeexal ko farata la fii ci jaamal demal ci jotaayu may boo dem ki nga xam ne moo fi teewal jëkkër bi mayekat bu mayee bu pare dafay wax ne nangu naa ñeexal ko farata la man da ñàkk ci sëy bu manqué ci jotaayu maye lu rëy manqué na ci daa nga dem ci barab doo ko gis danga nga dem ci barab gis ko waaye farata la bokkoon ko ci tuddal li ne borom jaamal comme ne ko suñ bàyyi alaaji baabu soxna nett lee ko am ndëgër moo ko déggee ci moom ma dégg ko ca kooka mu ne boo daan dox soxla ci biir këram moom moo lay waxal mooy wax wàllam mooy wax wàllu jigéen ñi moom ngay waxaat loo wax ak jigéen moom ngay jox doo joxante jigéen li li nga ko war a jox moo la koy wax li nga wax li li jigéen ñi war a laaj moo la koy laaj ba pare nag dox sa diggante jigéen ñi ñeneen dañ def loolu waaye ñeneen dañ def lu mooy loolu seen bopp la ñuy laajal ba pare ne la nag demal nga waxtaan ak jigéen ñi ku la ko wax dugal na la ci jëfeñ-jëfeñ sëriñ bi daaw a def loolu moom moom day li ngeen seq yéen ñaar da koy wax li nga seq ak jigéen ñi dala koy wax soo ko dee joxe ci loxoom nga koy teg jigéen ñi nag doo wax ak ñoom ci tëral yi mu tëral wàccee ñu ko ci la bokk lii nag moo tax ñi wut kilifa kilifa mag ngi nee nañu baat bi lu may firi mooy kilay kilifa mooy kilay fekk kilifa bu fekkee fekkul dara kon baat bi dëgguwut wala mooy dëggu baat bi dafay firi kilay fekk fegal na la la nga doon war a jaaxle ci noonu doxalee sa soxla bi yëpp jàkkale naa yow waxal la ko la nga doon war a jaaxle ci boo yëkkatee koo de teg ci loxol nga ci loxol ngay teg ci yar bi mu doon yaree njaboot ci la bokkoon ne booy dox ci kër gi soxla ni ngay defee këram xaawiwut ko woon ba kum neex nga dugg tëjut ko woon bu kenn du dugg kenn du génn su alaaji li mu ne borom jaamal jigéenam ñi dañ ko mosoon a wax ne ko dangaa waroon a def ni sëñ Aliou def sëñ Aliou këram day aaye ko dugg boroom jaamal ne leen sëñ Aliou fa xàmmi wut Aliou xàmmee gut waaw noonu la ñu gi daan nett li mu ne mu ne ko Aliou xàmmee gut borom xel du dugg ci kër ak nit te jaarut ci moom ki jaar ci yow balaa boo dugg ci sa kër la ko xaye dof mooy romb borom kër dugg ci biir këram dof la ko xaye mooy loolu la ñuy wax mu ne Aliou Aliou Aliou Aliou fa xamagut ràññeeku xuñ ci moom lool xitteel jàpp bis ci mayeb sëy saa yim ko dikkalaan foofu la koy defee def na ko ay sëy yoo xam ne dañuy tudd seeni woroom waaye barke bu rëy moo ci juddoo naa ña ca juddoo ñu ràññee ko lañ ñoo xam ne kuñ ci doon nga xam ko ñiñ fi bàyyi nag te seen dex ci géejam gi la bayee ko liñ ràññee ci ñoom ci liñ ni du jàpp bis mooy guddi dimanche ba sedd altine guddi alxames ba seddi ajjuma njëlbeenu weer gënal la mujj ak weer ñin fi bàyyee te seeni dex bayee ko ci géejam ga loolu am na ci niñ daan def nag ci xam-xamu hadis mooy boo soxlaa masala da nga koy seet ci alquran boo ko ca fekkee am nga la nga bëggoon boo ko ca fekkoon nga seet ko ci xam-xamu hadis soo ko ca fekkee am nga la nga bëggoon soo ko ca fekkul nga seet ko ci xam-xame saaba yi lépp lu ne gaase ñu xam ne nii la ci boroom jaamal doon def bu ñu leeree lañ bëggoon am nañ ko laajatuñ dara buñ ko ca xamul nag ñi ko toppoon seeni dex bayee ko ci géejam ga ñu tànqee ci seen dex fekk ca ndox mu sedd ndox mu neex ñu jëfandikoo ndox moomu waaye li nga xam ne matali na magi ngi jaamali yépp ma ngi jaamali yépp mag mi nga mag mi nga xamul dañ di tànn bis waaye duñ di ñaawal bis lii moom moo mat moo matale magi jaamali yépp dañ di tànn bis de waaye duñ di ñaawal bis ku ci soxla dikkal bis da ngay doxi ko ku ci am farata ci bis dangay dem su topp dooju ko dañ de tànn li matale ma ngi jaamali yépp dañ de tànn bis waaye dundi ñaawal bis lu ñoom ñépp nag luñ dajee rek xamal ci sañ bi la bàyyeeku lu ci kenn beddeekoo nag mën nañuy wax ne jikkoom la waaye ma jàmbal yépp daje ci benn jikko fan lañ ko war a jële daan na sant ñi nga xam ne ñii nii dañoo yore njaboot ñu ne yore seeni njaboot yore hin wu rafet rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam li nga xam ne moom la mujj dénkaane mooy eh, julli ak képp ku ngeen yilif ngeen de ko hormaal ki ngeen yilif mën na nekk nit mën na nekk daaba mën na nekk moomeel mën na nekk taalib bu la topp mën na nekk xarit bu ànd ak yow moo daan sant ne da leen xormaal jigéen ñi bu leen leen di dóor na ngeen yërëm gune taalibe yi bu leen leen di dóor moo ne yende da ngeen foog ne man dama farak jigéen ñi dangeen ngeen a foog ne dama farak gune taalibe yi li ma leen di xaayee doom njaboot bëri ba da ngeen mujj foog ndax dama far ak jigéen ñi dama far ak ku ne yi waaye faruma ak jigéen ñi faruma ak ku ne taalibe yi yéen laa farat yéen laa bëgg ngeen mucc doo ne métit ba muy métti ci kam dóor moom lay xool waaye kii dóor njuum njuumti lu rëy lim def noonu la koy aaye kam door njaboot la kam door mag la kam door gune la mënoon ngay yar te doo dóor mënoon ngay teete te doo gëdde mënoon ngay xamle te doo sonnale soo ko talee ci yow la kon nag gaaf gi lu dalee ci kaw ki ngay yar nga naa yow yaa amut nooy goo mën a jàngale ci lu dul dóor nga naa yow yaa amut nooy goo mën a amee jigéen te doo ko dóor yow yaa juum sa ñoomte loolu boo ko teg soxna si sa ñoomte loolu boo ko teg gune nekk gi mag ñi ñu ngay nettali benn waaye boo xam ne bi dafa nekkoon fii ci daara ji bëri lool lu muy dóor guneem taalibeem ba benn bés muy dóor gune taalibeem sëñ bi bàyyi ko ci kër gi dem ba ci daara ja fekk ko mu ngi dóor gune taalibe googu mu ne ko bàyyil gune gi ngay dóor taalibe ba ñàkk lu muy wax ne ko man ngi xilif waaye gune gi maa ko xilif mujjam am melokaan woo xam ne mboole li ñu fekki woon bis boobale dañuy wax ne baat bi mu waxoon sëriñ bi moo mu mujjee ni mujjee nit kay boo ko xelifee xelif nga lam xelif daara kay boo ko xelifee ñëpp naan ci daara ñëpp sa kilif la borom jaamal lu may tekki mooy dëkk bi yow yaa leen yonte be sallallahu taala alayhi wa sallama wax na ne ko xam ne kii nii da nga am soxna soo xam ne seeni jikkoom dafa ñaaw nga de ko muñ danga la jox ci tiyaabo lu toll ni lam joxoon Ayyuba ci tiyaabo lam joxoon Ayyuba ci ay tiyaaboom ko xam ne jigéen joo xam ne ji dafa muñ jikko jëkkëram ju ñaaw yàlla dana ko jox ci la lam joxoon aasiya ci tiyaabo amoon na benn waay boo xam ne bii nii fii nu nekkoon ci jaamal ñu jamonoy sëriñ bi moo jabaram waxtu wu ne ñu leen ay dégg benn bis nag soxna si dem bàyyi ko fi te ñoom ñaar ñoo nekk ci kër gi ni ma leen waxee sëñ bi amoon na pédagogie boo xam ne bii nii bu la jàngalee waxtoom la koy jàngal moo tax ba doo ko fàtte mukk sëñ bi da ko seetaan da ko seetaan ba ñàkk def ci moom li ñàkk a def ci nit ba ñàkk a reer def ci moom li ñàkk reer def ci nit moo ko mu ñëw mu tayal ko ndabal cere loo xam ne mënu koy jeexal mukk mukk lu mu gëj a gëj reer mënta jeexal ndab li mu tayal ko ba pare wàccee ko néeg ba dem waaye nekk ca ndab la sëñ bi dema dema dema ba ci kanam mu ñëw mu ñëw fekk waa ji pare na mu ngi xaar ki ko joxoon ndab li ñëw ba ñaanal ko ba mu dikkee mu ñaan ñaan ñaan ba teeral sëñ bi ne ko ana mbokk ma mu ne ko mbokk ma dee ñëwagut dem nga faam déedéet yónnee nga faam déedéet mu ne ko mën nañuy toppatoo de gis nga li nga doon jëriñoo ba mu da jox laa jigi ca xam dara maanaam li li li ngay tiim di ko jëriñoo nii jigéen ñi ñoo ko bojj ñoo ko soq ñoo ko wal ñoo ko togg ba nga mën koy jëriñoo mu ne ko gis nga li nga doon jëriñoo nii ba mu da jox laa jigi ca xam suba teel ñu xëy gaa yi ne yow si sañ waa ji ñëwul ñu laajte ko ñu ne dafa sa gannaaw dem ci gone ya <laughs> ngoon rek mu ñëw ànd ak soxna si ñëw <laughs> weeram bi amal na ko njëriñ de bool bu rëy lañ ko tàyyal boo xam ne nii ndab lu rëy loo xam ne mënu koo jaraal <laughs> man nañuy toppatoo de léeg-léeg nga doon jëriñoo ba mu ne jox laaj gi ci dara ñoo ko doon toppatoo ba mel ni li loom la xal dana la ko wax danga ko danga ko xam ci mën a toppatoo ci kenn ci ni ma la waxee ñi nga xam ne ci daara ji lañ màndee xam ne seeni seeni dex ci géej gi la bàyyi ko kenn kenn ci alajandi faana xalañaan lislaam da daan wax ne góor ñi ba léegi xamaguñ ne njëllu mat day yokk warsak mu ne góor ñi ba léegi xamaguñ ne lu mat day yokk warsak maanaa ci waxeen nga ne dépasse bu mat day yokk warsak mu ne ba léegi góor ñi xamaguñ ko mu ne buñ ko xamoon kër yi dana gën a neex ci ko wax kenn la ci ñi naane ci géej gi mu ne damaa dem ba do mag doora xam na amee kër kër muñ ak njëriñ kër muñ ak njëriñ nii rek ni la yem mais damaa ba do mag door ko xam kër muñ ak njëriñ mu jeex kenn la ci ñi nga xam ne ci ci géej gi lañ naanee ba fa tabarakallah ñu di ñu di ñu di ndamoo liñ fi jëlee alxuraan dafa wax ne fa imsaakum bi maarufin moom lañ doon leeral mu ne am tasbihun bi insaanin bu dara desul lu muy tàggoo na rafet loolu sëñ bi jàngale na ko dafa amoon benn waa boo xam ne bii ne dafa tàggu woon ak jigéen bu ko topp ak moom sëñ bi xoo ko mu ñëw mu ne ko bu ko topp ak moom jigéen mu ëpp wasa góor soo ko toppee moom bu ngeen bëree ba nga ne teeral nga su ngeen ca bayee ko du ko xañ mu sëyi ci ci kem waaye yow xam kem dana la të lu mat a lu mat a seetantal la li wax noonu ba ko topp ak moom jigéen moo ëpp warsak góor soo ko toppee moom ba teeral loolale moom ndaw si du ko xañ mu sëyi ci kemam waaye yow dana la xañ nga am kem bu ko topp ak moom loolu wute naag waaye ja nga xam ne ñi ni ba mu tàggoo kam tàggoo dafa wuti big bu neex wuti kayit gu weex tàll mu di ca bind da ca bind da ca bind da ca bind ba bindaale loo xam ne moom ci boppam moo ko lekk mu di ko fayee ko ba bindaale ca loo xam ne moom ci boppam moo ko lekk moom la bindaale ci këyit boobu yëpp mu boole ko da ko fayee ko lam lekk moom ci boppam ak lam bokk ak jabaram lekk ak lan la nga xam ne gan ñam ànduloon ñoo ko lekk yooyu yëpp lay def ci kayit bi da ko fayee bokk la li nga xam ne moo nekk ci xadiis yonent bi sallallahu taala alayhi wa amoon na benn waay boo xam ne benn jigéen boo xam ne bi dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ko ne ko moom mënatul ànd ak jëkkëram jëkkëram yonent bi ne ko lu mu defoon ci yow mu ne joxoon na ma ab tool mën naa koy delloo mën naa ko cee dollil yonent bi wax jëkkër ji laaj ko ne ko sa borom sa soxna si de lii la wax ndax man ngay jël tool bi te bàyyi ko mu ne ko nangu naa ko ndaw si nag ndaw saa ngi toog ndaw si ne ko mën naa ci dolli mu ne ko doo ci dolli nag sëy kere bañ dajee ne kere lañ koy waxtaanee kenn lañ tuddoon kenn lañu waxoon ne moo fa sëy bi ni ci des yëpp ay tiraanga la rek ku ko fayee ku tiraanga teraanga ku tedd du ko fayeeku ah ku tedd du fayeeku teraanga te li bi mooy kenn ba jëlee sa bi bu neex ak sa kayit gu weex ngay bind de bind de bind de bind boo mais comme ni ma leen waxee sëriñ bi dafa mën a jàngale xam na alal su nekk sa xolu doomu aadama waxu ko ne ko bul ko fayee ko alal waxu ko loolu da ko waxal li mën a xam moo ni gis nga kii soo ko toppee doo ko yàqal sëy ci ay nawleem te dana la yàqal xam jabar ci say nawle ba koy lii laa bëggoon a waxtaanee ci borom jaamal ala jàpp lay siite mbokk yi auditeurs yi rajo Kaolack dégg وأقبلك من بحر الأخيار سيدنا ونبينا محمد المختار على آله وأصحابه أرباب الجاه والتابعين وتابعين بلا تنام وبعد إخوتنا الكرام وأحبتنا العظام الحاضرين والحاضرات بهذه البقعة المباركة المنزهة المشار إليها بإحياء القرآن والسنة المطهرة نقدم إليكم أحسن تحية تحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأيضا نهنئكم ونقدمكم بهذه الحفلة الباركة الميمونة من أجمل الحفلات المرسومة تهنئة المسوق إلى رؤية أجسامكم الكريمة وشخصياتكم العظيمة أن نقول لكم أهلا وسهلا في بقعة العلم والكرم ومنبع الخير والحكم ونفصل أخلص التحية لشيخنا الحاني الممدوح بين قوسي والداني الشيخ السيد الخليفة العام الحاج عبد الله السيسي والسيد الكريم الحاج عمرو بن مصطفى السيسي وعالم العلامة أستاذ أحمد علي السيسي كذلك الشيوخ والأساتذة فحاولوا أيدهم الله ونصرهم وأمرهم وأخشاهم بعطائه حتى كملوا ما شيدوا في البلاد من تعليم وتربية وإرشاد ولجميع الحضور رجال ونساء كبارا وصغارا وخاصة بأهل جامل وما حوله فهذه الحملة حملتكم آلية حافلة كما لا يخفى عليكم فنحمد الله ونشكر بهذه النعمة الصميمة والسعادة الحميمة وهي نعمة الحضور بهذه المدينة المحروسة ذات خصائص معينة والسماء المميزة من العلم والتقوى المدينة التي تفجرت أنهارها فقد زينت أزهارها وأنار البلاد من أشيعتها وانتشر الدين من علمائها بعدما قامت بتعليم أولادها وبدفع الجهل عن قاصديها فما أسعد من ببهرها ورد وأجزل جزاء من على أهلها وفق ولله بر من قال jaamal wa maa adraaka maa jaamal naqat lu dawi hidaayat markaz al-ulamaa hiya bahjatuna ghaalimatun nahwinaa saalu wasaayatu nasr al-quraa'i jul fi l-bilaadi falan tara min mawqidin ahadan yumaathiluhum min al-fuqahaa'i lam yasta'ir al-fadl min ahadin fahum ahlul ma'aali min bani al-fudalaa'i nusat ala taqwa bi diini hidaayatun mujjat lil-maani'i wal-ikfaa'i wa dhaalika bi ijtihaadi mu'assisihaa التي بذل الجهد بالتربية وبتعليم الأولاد ومحاربة الجهل والبدعة في البلاد التي ضرب الأكبار وهجر الذي ترقى لصون أبناء المسلمين من الدنيا ومكايدها وما نصب له من مكايدها أعني شيخنا الفاضل والهمام الكامل الجامع لما تفرق من العلوم والأسرار والمواهب والأنوار القطب الشهير والبدر المنير العالم العلامة والحافظ البهامة السيد الجليل والماجد الأصيل وليد عصري ومرجع أهلي الشيخ سيدي عبد الله السيسي المشهور بلقب الشهيد برم جامل الذي صارت ركبان بأحبار كريم وملا الخاطقين بذكر مزيته المضرب المصر بحسن تربيته وتعليمه وتثقيفه وتقويمه للحمل لواء العلم والنخبة والمعرفة الصحيح والسقيم ولجمع شتات العلم من المنطق والمفهوم وكان مقتلا بي في العدالة والعبادة والشجاعة ومغرما بتربية تلاميذ تربية كاملة شاملة من كل وجوه جسميا وعقليا وخلقيا وروحيا وتصفية بواتهم عن العيوب النصية وتخليهم بأخلاق القرآنية وكان أحرص الناس على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظا على حدود الله تبارك وتعالى في السر والعلانية وجعلهما أفضل الكرامة وموجبي السلامة وبهما سبق الأقران والنال بالدوان ومتصفا بالصفات العادية وبالأخلاق المادية وعادلا بأقوالي وأفعالي ووارعا فيما بين الله وجيراني وموصوفا بتعمير المساجد حتى نال ما نالوا من مولاه ماجد لذا قال الشاعر عبد الإله اسمه اسم تجاهل شيخ المشايخ أحب الذكر يعرفه فخر البرية النور الدين بهجته بحر الفضائل باب عند النور نجم الهدى نخبة الأخيار عينه عبد الإله الذي قد فاق المحصر عبد الإله الذي قد فاق المحصر هذا العلوم إذا ما إذا ما قد جهل خير الديانة قام السيق يعلنه حل الكجورة يبذ البحر مجتهدا أما السريعات قد بان فصاحته أما قليل أتانا الحبر منتقلا من الكجور إلى الإخوان وجهته العاصر السيق قوما كان أورعهم قولا وفينا الحباب الله مطلبه يقرب ضيوف لوجه الله بارئا يعطي نوارا فإن الجود خصلته كنز المساكين مصدر مصدر في جنب الذكر غاب الشريعة قشع شجاعته سر المحابة من مولى أزهده بيت السعادة بعد الموت والسنون تبكي الكبار عليهم وصغارهم يا فوز من سارتكم ثم جسدوه ربي بعزة القرآن وسيدنا فقد سرورت وبارك جماعته وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يا أخذ الجلسة وأسبل لنا ولكم فوق الستر والغفران مقرون بحفظ والدوان وآخر دعوانا حل الحمد لله رب العالمين